Ah. Alors bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, amis fidèles téléspectateurs de Leral TV. Merci de nous recevoir chez vous. Ravi de vous retrouver sur cette antenne de Leral TV. Mbokk yi xaritu téléspectateurs yi ñuy seetaan ci Leral TV. Asalaamaaleykum. Mbokk yi nuyu leen bu baax di leen dalal jàmm nag. ma Allah tey équipe bi dañoo seet ci xale boo xam ne moom daanaan la ñu fi nga xam ne moo di Ravin Night Club ku ne Ravin wax euh, ndéggal loolu cëm ku wax euh, banlieue ku ne Ravin xale yi nga xam ne ñu ngi ci banlieue bi di def musique bu am solo tey nag mbokk yi dañoo seet si benn xale boo xam ne macha allah moom bu mu ñëwee si musique sénégalaise ba léegi euh, na ba dolli ci fexe na ba wone empreinte de son vrai nom Garmi Ndiaye la ñu ko tuddee moom dèjà turam rek dafa dafa résumé lépp ndax Garmi Garmi moom Garmi nga rek voilà mi ngi noonu mu doon benn jeune talent boo xam ne nag il est pétri de talent, doté d'une belle voix. Il a une voix sûre, il a une voix pétillante, il a une voix Kanté moom mi nga xam ne moo di Garmi Ndiaye mën lool li muy def tey dina leer ni euh, fi nga xam ne moo di Ravin tey dina neex lool mbokk yi mu ngi noonu bu ko defee rek lépp loo xam ne spectacle la show ñu fas yéene leen ko dëgtal dara du leen ci ump ndax euh, xale bii nii banlieue bi moo ko bàyyi xel xale bii nii banlieue ñoo ko jox bopp banlieue ñoo nekk ci ginnaawam la preuve tey euh, Ravin dina fees dell dina neex dina am ambiance alors mi ngi noonu nag bu ko defee rek ñu daal leen dégtal lépp loo xam ne rek ambiance la wax leen tamit ni Garmi Ndiaye xale la boo xam ne nañ ko bàyyi xel bu baax baax a baax ndax musique sénégalaise jox nañ ko bopp à travers sa belle voix bien sûr à travers aussi texte mi bind si euh, ay ay morceaux mi ngi noonu mbokk yi nañ dem xooli spectacle xooli Garmi Ndiaye lan la ñu indil tey si Ravin Night Club avec Diagne le plus jeune animateur au Sénégal waaye xale yi tuddee ma doomi réew mi nañ dem xooli ñaar. nga nuyu téléspectateur yi lay seetaan. waaw maa ngi nuyu waa Leral point net di ku seetaan Leral point net di leen gërëm di leen sant may defal. papa sañ nga waaw gis nga ren ñoo rek ñoo rek si bisu Garmi Ndiaye rek. macha allah daf yëfu taalibe rek waaw. waaw sa diggante Garmi Ndiaye ba mu jaral la tey nga nelaw ñëw fi. waaw Garmi nekk na booy boo xam ne nekk sama xarit nekk booy boo xam muy dëkk yëmbal Mali entre yëmbal Malika nekk booy bu gëm boppam gëm li muy def moo waral ñu déplacé bàyyi suñuy nelaw yëpp ànd ak ñu ñu àndal ñëw si bisam bi wax dëgg na yàlla. moom jeune la di ndaw am talent nekk si yoon lan nga koy conseillé si musique. li ma koy conseillé rek mooy fi mu teg fi baax na mu gëm boppam xam fu mu bëgg boo gëmee sa bopp daal war na mën a am lu ne si musique parce que booy bu gëm boppam la daal la te mën na woy am na talent ñu ngi si ginnaaw ñu koy suivre fu mu teg tànkam daal foofu la. macha nañu xaar nga gunge ko ëllëg mu dem Sorano Grand Théâtre. incha allah nañu gunge ko fépp fu mu a dem incha allah dugal suñu loxo bu soobee si yàlla suñu borom. papa tey kan nga àndal nii kan ak kan nga àndal. waaw maa waa Allou Ba Niang ñëpp maa ngi ànd fës bu nekk Daaru Salaam 6. macha allah maa ngi ànd ak moom ànd ak ñoom sama jigéen yi ñoom Muna Seydi. macha allah ànd ak sama gars yi ñoom Omar Gueye Papa Ndaw ñoom Talla Ndour Baba waa Noble Gang ak waa Parisien ah, Daaru daal kenn desul. macha allah Palma yow Garmi Ndiaye sa lan la. waaw Garmi Ndiaye ah, suñu artiste la rek bëgguñu bay bëgg a dee bëgg suñu maire bëgg suñu Abdoulaye moo tax tey waral ñu bàyyi suñu itte yëpp ñëw fekkee soirée bi. bi mooy ñaari yoon muy tëgg ravin te bu tëggee ravin macha allah day fees dal ala lan nga koy gën a conseillé lan nga koy gën a ñaax. waaw dara xanaa mu gëm boppam gëm boppam parce que mën na li muy de te bu gëmmamee boppam rek mën naa sax tëgg ay soirée grand théâtre te boobaa fa sëriñ Bay da nga rafet macha allah merci kon yaa jàmm ça va la nga waroon teewaay bi waaw dañoo ñëw accompagner Abdouli suñu mag suñu xarit moom lañ tuddee bis bi tey ñu accompagner si ko macha allah alors lan nga koy conseillé waaw dama koy conseillé daal na continuer ci lancé bi mu nekk rek macha allah nit ku baax la ku am idée aussi ci nit yam nga sànce ba mu baax merci Thank you.

ngeen ni kii toog moom macha allah def na bu baax yaram li naa. fay naa la. lan moo waraloon teewaay bi. bon comme d'habitude ah Garmi Ndiaye di artiste bu mag bu dëkk si banlieue bi pour la première fois mu doon def lii man la ko parrainé woon man la ko tuddee woon. macha allah tey dafa man maay parrainé d'honneur bi mais Youri Sall. Youri Sall. responsable politique affaire yëmbal. responsable politique ci coalition Benno Bokk Yaakaar. macha allah ba pare nekk président du mouvement taxaw yëmbal Nord. moom ndaw la doon artiste am talent lool lan nga koy conseillé. bon garmi pour man aw ma leen lu ma ko conseillé mu ngi si yoon bu baax li ma koy conseillé mooy fonce yi na jublu mu dem aar bi dafa met parce que ku ko xam xam ne lu métti la mais garmi yàlla def na am na talent ba pare xamante na ñu am talent. mu ngi si yoon bu baax man am naa si moom confiance ñi fi nekk ñëpp am nañ si moom confiance bon allez-y laa koy wax. macha allah bii mooy ñaari yoon muy woote Ravin te saa yu wootee gis nga ni mu koy def day fees dell est-ce que jotul mu xool yeneen saal yi fi nekk. waaw man moom personnellement bi mu ñëwee sama saal barki démb nee na mu ngi waajal avril bii fii si Daniel Sorano man wax moom wax na ma loola ah. te nee na man la koy parrainé benn parrain d'honneur lay am mooy man moom Garmi Ndiaye moom amul droit wax mais comme leeral la te sa président sama xarit la muy daam joxe ah, ñoom Lamine Diédiou man maa leen di fournir ay matériel informatique lépp lu ñu am maa leen ko jox moo tax à travers fii mën na naa fi jàllale jeex na kon ñu ñoo am exclusivité bi jërëjëf merci merci beaucoup frère teewaay fii Garmi Ndiaye kese moo ko waral ah, teg si dafa nekk suñu xarit nekk suñ doomu ndey nekk suñ mag nekk suñ lépp moo tax tey ñu bàyyi suñu yite yëpp ñëw fii ndax moom. macha allah Garmi moom mi ngi si yoon macha allah lan nga koy dolli tey loo xam ne bëgg nga mu dolli ko ci si milieu bi mu nekk. waaw doomu aadama moom bu nekk doomu aadama doomu aadama la ko mën doon te am na yéen yoo xam ne nit bu bëggee dem daf koy moytu. muy lenn doomu aadama day moytu yen yu bëri daal. macha allah mu koy éviter si ay nitam. ak si dëkkandoram ak si ay mbokkam yëpp. bu bëggee dem daal na gën a yokk yar bi rek. na naan dina dem si kaw fu ñu dégg Wally Seck dinañ ko fa dégg bu soobee. kontaan frère. waaw suma ànd suma doomu ndey muy Youri Sall futur maire de Yeumbeul at Oussou. Garmi nekk benn jeune talent boo xamante ne si dafa nekk suñu koñ nekk nit koo xamante ne si dafa ñàkk ki ñaan lépp lu ñuy def da ciy participer ak ñun kon su fekkante ne dafa xewle lépp lu muy def ñun dañuy bàyyi suñu yite pour assister ko loolu moom moo waraloon suñu yite di ko ñaanal bonne réussite lépp li mu bëgg ci aar bi suñu boroom defal ko ko merci beaucoup. lan nga koy xelal ci carrière waaw chaque fois rek nay dëggu. te bañ a wor xam bu baax fi mu jëm xam bu baax fi muy teg tànkam tey sàkku ñaanu waajuram am na solo. macha allah kontaan naa ci frère merci beaucoup. xam nga nag soirée bi tey dafa spécial ndax ñun ko tuddee ñoom ñooy spécial ki toog nii moom ci si marraine yi la bokk soxna si nuyu naa la. tey naa la. comment tu waa gis nga de loolu la yàlla dogal. xoolal caméra bi nga nuyu kontaan si yéen kontaan si ñi sama mag yi ñoom ñëpp maa ngi kontaan si ñoom kontaan naa daal si ñoom. lan moo si diggante Garmi njaay tey ba mu xewle mu ne yow la koy marraine. waa Garmi Ndiaye moom sama xarit bu yàgg la te lu yàgg dëgg la man moom depuis xale la woon moo tax lu yàgg la looloo tax. mais ni nga def tey sànq si kaw seen bi loolu lool yéeme na de. waaw Garmi ko waral lu ko jar a jar lu ko jar mënu ko jar. alors moom xale la ngi ci yoon nga koy conseillé tey. na jàpp rek te ba te ñun ñoo ngi ci ginnaawam. léppay baax. dañ leen song rek allah léegi léegi rek. waaw yàggatul. macha allah ñu ci yoon bi dañuy dem. maa ngi koy dégg maa ngi koy dénk fu mu jàpp foofu la. bu ko bu mu teggi loxo benn yoon fii la fu mu jàpp fii la. incha yàqu. waaw merci. daal xale ñoo moom sañse quoi. waaw gis nga. alors lan moo waral ñëwaay bi tey. waaw tey dama ñëwoon rek gunge sama rakk. macha allah Nabou. waaw di gunge si ko tuddee tey. waaw noo noo Garmi Ndiaye. ah macha baat bi neex na mun na way macha am na avenir daal ci kalamam incha allah. kon mën nañ xaar ay Sorano Grand Théâtre. incha allah pourquoi pas. Ah, bien sûr ngeen ànd naa ci tey moom dama ànd ak sama rakk bu ma bokkal ndey baay sama doomu ndey Garmi Ndiaye tuddee ko bis rek ñu ànd ak moom ñëw teewal ko. waaye da ngeen a soog Garmi Ndiaye de. waa gis moo ko waral rek macha allah dafa baax ba baaxee démb ba tey bonul baax rek bëgg ñu mu nekk lu yàgg nag sama digganteeg moom ak sama rakk mu nekk lu yàgg kon kooku bu xewlee kooku dañoo jaay suñuy lal rek daal di ñëw. mi ngi lay seetaan lan nga koy conseillé. ah ma ko mu jàpp taw a bàyyi rek macha allah mun na li muy def te gëm na ko rek taw a bàyyi incha allah dina baax. mais sañ se ngeen ba yàq. waa gis nga dañ ko simple rek. jàpp jàppale Garmi Ndiaye. xaarin taa laa toogal nii mais mon frère namu naa la. maa la raw doom day. maa ngi sant bu baax. lan moo waral teewaay bi tey. Karim nag daa nekk rakk ju baax bëgg na boppam bëgg ma te yàlla tax jabaram bëgg ma moo tax bu xewlee man fu ma jaar danaa teew maa waroon séy ji tey soirée mais dama ko bàyyi ndax moom bàyyi sëñ Saliou. mais Xaadim mais 2020 bi xanaa dañ ñu si génneel lu bees. bëri na génne naa lu bees muy toj dëkk day dëgër boobu góor day dëgër. góor day dëgër gëj. mais Marim loolu noo ko mën a wéy. am waxoon naa la Garmi Ndiaye nag moom daanaan la bu wootee ndeysaan jeunesse bi ñëpp a ko wuyu. yaram lu waral teewaay bi ngeen. waaw di nga teewaay Garmi rek moo ko waral. suñu waay suñu xarit suñu doomu nday bilaay walaay. alors. bi mooy bi mooy deuxième fois Garmi Ndiaye di woote fii te gis nañu bu wootee macha allah day fees lan moo waral loolu lan mooy secret bi. waaw mais parce que dafa yëg nit ñi quoi jox nit ñi seen àq jox nit ñi seen gëdd respecté ñëpp fu mu woote dañ wuyu tey bu wootee woon personne dañ koy fekk boobu noonu. ku baax la amul benn problème mooy loolu suñ grand la amul problème. bilaa wala. ate lan nga koy conseillé moom Garmi Ndiaye nekk na si musique sénégalaise lan nga koy conseillé. waaw mais mu jàpp rek fu ñu dégg waykat yu mag yi ñu dem ba di ko fa dégg yaakaar naa loolu rek moo am solo quoi mu jàpp te dara mu bàyyi quoi ndaw la xale bu ndaw la day doog a dóor booy bi tuuti la noo koy gisee nii day doog a dóor li ma koy mu jàpp rek doo bàyyi yàlla baax na quoi. macha allah mi ngi noonu Ador léegi fa la ñuy xaar Garmi bu wootee ravin mu woo Grand Théâtre fépp mën nañ ko xaar fépp ba Bercy sax mën ma ko gisee nekk talent beeg affaire yi non booy bi wóotee Bercy sax day fees bilaay walaay talaay booy bu baax la booy bu am talent la dafa mën li muy def macha allah bilaay walaay aca mi ngi noonu mbokk yi gis nga ay ay fan sam wuy si nañ ko tey waaye tamit dañoo toogal benn benn góor yàlla mu def sañse bu nice mais d' abord kan moo la sañsel waaw d' abord ki ma sañsel mu ngi tudd génération couture quoi ñu koy naan Ndongo Diallo ku bëgg jàmpuut rek bu baax rek na nga ñëw ci moom lan mooy teewaay bi tey lan moo waral teewaay bi. waaw tey dañoo ñëw seet si Garmin Ndiaye fii waaw dafa woote ñëwun ci ko ñun jeune àll ba ñaax yi xam nga Garmin dafa nekk ku baax. xam lu mu xew la rek da ci euh, day woo waa àll ba moo tax ñu ñëw seet si ko. waaw rawatina ki mu tuddee fii nag mu di Abdoulaye Abdoulaye moo gën a waral ñu ñëw fii tey waaw kooku borom baax la xam nga borom la yéen a ñëpp jàmm kooku di Abdoulaye waaw borom baax la torop kooku gën a tax ñu ñëw fii tey ndax moom yàlla na ko yàlla fay xolam quoi fu moom dinañ ko wuy si. te mi noonu mbokk yi ñu ne ngeen jëf te Garmi tey lan ngay wax sa parrain bi wax. kii dama sagal suturaal ma mbokkum nay Daouda Ndiaye. yàlla def mooy maire moom Daouda Ndiaye benn lan. bu baax gore jàppale ma soutenir ma fi mu dëkk ñëpp a ko gërëm xale yi ñëpp ñu fi moom moo fendi di ànd ak Daouda Ndiaye maire yëmbal jàppale yëmbal di liggéey yëmbal ñi nekku ñoom maire maire yi nga xam ne liggéeyu ñu yëmbal ñi dañoo liggéey suñu commune ma kontaan moom bis bi li muy rëy moom dong ko moom ça a été un immense plaisir vraiment de partager ces moments de bonheur et de plaisir avec vous euh, neewoon naa la nag xale bi nga xam ne moo di Garmi Ndiaye son leen di Garmi la nee naa la musique sénégalaise euh, amatina euh, ndam ndax xale bi di Garmi Ndiaye pétri de talent doté d'une belle voix comme ni ko waxee doy alors mi ngi noonu a Nar le plus jeune animateur au Sénégal xale yi tuddee ko doomi réew mi tey ñëwoon nañ fi nag j'espère que li ngeen fi gis ci ambiance ak xeeti beex baax eh, seen xol neex na bu baax yéen sunu ay téléspectateurs yi ñuy suivre maa ngi sant bu baax di gërëm tonton Abouba depuis di gërëm sama umpaañ umpaañ Nabou di ko sant bu baax merci beaucoup tonton Bey di sant aussi bu baax a baax a baax képp koo xam ne rek yaa ngi jàppale a